أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون عباد الله فإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الطائعين أن هيأ لهم أسباب الفوز بمرضاته والتزود من والتزود من الخير والأعمال الصالحة وذلك من خلال مواسم تكثر فيها الخيرات والبركات ويزداد العبد فيها قربا ودرجات فقد روى الطبراني من حديث محمد بن سلم, سلم مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقي بعدها أبدا mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ko kañ di ko bàkk cant gu yelloo ak jëmmam ga moom mi nga xam ni mooy borom mbindeef yi di seen ki ñu war a jaamu bokkaale ñeelu ko ci jaamu gi ñu koy jaamu comme ni mu ñàkk bokkaale ci ay jëfam ak i melokaanam di julli di sëlmal ci suñu sang suñu yenent muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu berte ci moom xéewal ak mucc ak barke waaye def ko ci njabootam gu laab ga ak àndandam yu baax yi ak képp ku jaar ci seen i tànk ba keroog bis pénc yàlla na ci yàlla boole ginnaaw loolu mbokki jullit yi borom bi subhaanahu wa taala dafa bokk ci xéewal yu màgg yu mu xéewale jaamam yi mooy mu waajalal leen ay jamono ay waxtu yoo xam ni lam cay def ci yiw ak barke defu ko ci yeneen jamono comme ni mu binde binde ay bërëb ni mu sàkke ay bërëb def ca bërëb yi ay yiw ak i barke yu amul ca yeneen bërëb yu dul yooya noonu la sàkk ay période ay jamono yoo xam ni lam cee def ci yiw ak barke amul ci yeneen jamono yu dul yooya ngir jaam ñi mën a profito màng yiw wu baree bari ak ngërmaande borom bi subhanahu wa taala moo tax yeneen saa sara mi ngi nett ci xaddis boo xam ni Muhammad ibn Salama al-Ansari moo ko nettali jël ko ci Usaama ibn Zeydin mu ne Usaama dafa wax ni yonent Muhammad ibn Salama dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seen boroom am na ci seen jamono yii ngeen di dund am na ci ay jamono yoo xam ni ay occasion la ko def yoo xam ni la ngeen ca mën a jële ci yow mën nañu ko jële ci beneen jamono bu dul yooyu mu ne kon na ngeen ci góorgóorlu na ngeen ci profito mu ne amaan na benn ci jamono yooyu benn ci occasion yooyu ngeen amee ci loo xam ni dootu leen texee di faaw kon ay période la yoo xam ni borom subhanahu wa taala da ko sàkk ci biir weeri at mi sàkk ko ci biir fani weer yi sàkk ko ci biir waxtu yi fan yi bu ci nekk sàkk sàkk na ci ay wax ay jamono ak i waxtu woo xam ni ak i temps lam ca def ci dafay na ci yiw lañ ca mën a màng ci yiw mënoo ko màng ci yeneen jamono dafa bokk ci jamono yooyu nag période yooyu yàlla def barke ak yiw bu baree bari woo xam ne nañ ca mën a góorgóorlu fàgg màng ci lu bari da caa bokk weer yi ñu nekk di weeru baraxlu weeru Shaabaan di weeru jàngkati alxuraan yi di weer woo xam ni ci la ñuy yëkkati jëfi jaam yi jëfi jaam jëf yi jaam yi jëf ci at mi yëpp weer wii la dossier yi di yéeg ci yàlla subhanahu wa taala dossier yi at mi ci weeru barax lañ koy yéegal comme ni ñuy yéegale dossier yi semaine bi ci alxamis ak ajjuma comme ni ñuy yéegale euh, jëfi semaine bi ci alxamis ak ajjuma noonu la ñuy yéegale euh, jëfi at mi ci weer bi nga xamante ni mooy weeru baraxlu di weeru waajal koor di weer woo xam ne weer wu ñuy waajale weeru koor kon mbokki jullit yi ku yàlla may nga fekke weer wi war ngaa sant yàlla bu baax a baax ndax euh, dafa bokk ci xéewal yi ñu yàlla defal mooy xéewalu dund xéewalu fekke xéewalu dund xéewalu fekke xéewal gu rëy gu ñu war a sant la bu la yàlla may nga fekke jamono bii boo xam ni yow yaa ngi mën a nee def lu baax yaa ngi am occasion wu toujours di màng yow ñu ko fekkewul mënatuñ ko amatuñ ko occasion bu fekkee ay milliards mënu koo joxe ndax ci nga mën a dabu li la li li la rëccoon li nga ñàkkoon ci nga ko mën a dabu waaye ci nga mën a profitoo li nga soxla ku ko fekkewul nag loolu moom mënutoo ko fi mu ne ñi ñi ko fekkoon daaw te fekkewuñ ko ren ñoom fañ nekk fayu ko seeni jëf rek lañ fa nekk mais mënatuñoo jëf baatu laa ilaha illallah li muy yomb yomb mënuñ ko am baatu astaghfirullah li muy yomb yomb mënatuñ ko am baatu allahu akbar li muy yomb yomb mënatuñ ko am kon bu ñu yàlla mayee fekke fekke ay temps ak i jamono kii waxtu yoo xam ni dañaa la fii kat waxtu profité la loo ci def ci yiw buñ doon fay benn lu ko ëpp foofu lu ko doublé la ñuy fay kooku boo ko fekkee waroo def lu dul góorgóorlu bu baax a baax ci profité moo tax usaari usaamatu ibnu zayd bi ngi nettali mu ni yonent mu ni dafa wax yonent bi ni ko dama seetlu ni li ngay woor waxtu ci ci weeru baraxul wii ci weeru shaabaan wi gisuma waneen weer woo koy woor moom loolu moom dañ koo seetlu Usaama moo ne yoon saata nun day ñi ñi ànd ak yow dañoo seetlu ni ñun saxaaba yi dañoo seetlu ni li ngay woor ci weeru baraxlu doo ko woor ci waneen weer wudul weeru koor loolu laaj yonent bi saa sallam yonent bi saa sallam ni ko weeru ndaxte weeru baraxlu weer la woo xam ne ci la ñuy yéegal jëfi jaam yi ci borom bindee fi subhanahu wa taala ma bëgg su ñuy yéegal samay jëf mu fekk ma ci koor lii moo poussé woon ki yàlla jéggaloon ay bàkkaaram yi jiitu gi mujj yépp moom moo doon occasion na woo ci occasion yii ci façon bii ki nga xam ne mooy suñu royukaay ñun ci moom la ñuy ay ay tànkam la ñuy topp ci ni ñuy fàggoo ngërëmul yàlla kon ubbi nañu bunt bi ni moom daa bëgg bu ñuy yéegal ay jëfam bu fekk ko ci koor moo tax muy bokk na ci li tax muy woor weeru muy bari lu muy woor ci weeru barax kon mbokk yi weer woowu mooy weer bii kon nag walañ cee tax am ay taxaw seetlu ci xaddis boo yoon saa salaam wax li tax muy woor weeru barax lu woowu di ca profité mu am ci ñeenti njariñ yuñ ci yuñ ci jukki bëgg koo fàttali suñu bopp fàttali ñu ko njariñ yuñ njëkk yi yéen salaata mu ni la mu njëkk a wax avant muy tonti li tax muy woor dañuy weeru baraxlu shahrun yaaru yaaru fulul naasu anhu bayna rajab wa ramadan ndax weeru baraxlu weer la woo xam ni dafa nekk ci diggante ndeyu koor ak koor mooy diggante rajab ak ramadan la nekk mu ni te te mu- te diggante boobu nit ñi dañuy sàggan weer wu nit ñiy sàggane la ndax daa nekk ci diggante rajab ak ramadan loolu bokk na ci tax mu koy mu ciy profité moom ñaareel ba itam ci la ñuy yëkkati ay jëfi jëfi jaam yi jëme ci bon subhanahu wa taala kon weer la woo xam ne nit ñi dañ ciy sàggan nga gis ni kon weeru baraxlu bu ñëwee li ëpp ci nit ñi mbiri àdduna ci nu ñuy waajale weeru koor ci mbiri àdduna ci la ñuy nekk waajal koor gi nu ñuy def ba koor gi ndogo yi di doy nu ñuy def ba koor gi suñu mbokki jigéen yi euh, euh, suukaru koor yi yu bari ci yooyu la ñuy tëw jëm ci àdduna euh, fàtte euh, fàtte sax ni weer wi ñu nekk weeru weeru jaamu yàlla la kon weeru nee na weeru càggante la waaye ngay jàngaat ci weeru càggante wi muy góorgóorlu moom ngay gis ni yoolu góorgóorlu ci jamono bu nit ñuy sàggan mooy ëpp mooy gën a bari ci jamono ji ñëpp di farlu jamono ji ñëpp ñu farlu nga ànd ak ñoom di di jaamu yàlla la nga cay amee ci yiw bu nit ñi sàgganee yow nga bàyyi xel sa bopp dégg nga génn ci càggante gi góorgóorlu ci sa diggante si borom la ngay am ci yiw mooy ëpp fuuf yenn saa salaam yi ñu wax lu mel noonu ci benn xadis mu ni salaasatun yuhibbuhumullah wa salaasatun yubxiduhumullah amma salaasatu alladina yuhibbuhumullah fa rajulun ataa qawman fa sa'alahum billah wa lam yas'aluhum bi qarabatin baynahum fa manacuuh fa taxallafa rajulun bi acqaabihim fa actaahu sirra mu ni ñett a ngi nii yàlla da leen di bëgg ñett a ngi nii yàlla da leen di bañ waaye mu indi ci xadis bi ñett yi ñu yàlla yi bëgg mu ni ñett ñi yàlla yi bëgg kenn ki mooy koo xam ni dafa ñëw ci aw ci aw nit laaj leen sàkku ci ñoom ndimbal laaj leen ci yàlla laaju leen ci ak jege ñaale guñ séq laaju leen ci ak bokk wala leen lu leen boole laaju leen ci loolu waaye da leen laaj ci yàlla ngir yàlla nee na nit ñi gàntal ko mu ne ginnaaw dem kenn ci nit ñi rocciku dem jox ko ci secret jox ko jox boo xam ni moom ak moom dong ak yàlla ñoo xam ni jox na ko mu ne kooku ci soppee suñu borom yi la bokk kooku ci soppee suñu borom yi la bokk mu ne ak koo xam ni dafa ànd ak aw nit ñu nekk ci ay activité doxub guddi wala nekk ci ab liggéey bu mën a doon ñu ànd ko ba guddi jot ñu sonn lool gis ni waxtu nelaw jot na waxtu noppal ñoom ñëpp ñu ànd tëdd noppal am ci ñoom ku rocc ku roseet nee na ñëw di ma si boro ñëw di jéyanteeg man yàlla subhanahu wa taala di ma di ma jaamu di ma di ma ñaan di jàng samay samay aaya yi mooy di julli di di di di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci loo xam ne bàyyi bu ñëpp tëdd mu rocciku dem di jéyanteeg borom mu ne kooku ci soppe borom bi subhanahu wa taala la ak koo xam ni dafa ànd ci ab lël ay soldaar yuy dem ci yoonu yàlla ñu dajal noon yi ñu jàmmaar noon yi ba noon yi dominer leen moom mu moom mu mu mu engagé bañ a dellu ginnaaw bañ faat ko ca wala mu am ndam mu ni kooku soppi suñu borom bi subhanahu wa taala la bokk kon nga gis ni li ngay dégg ci xadis bi mooy góor góorlu ci jamono yi nit ñi di sàggal ndax ki tëdd di nelaw ki ñëpp nelaw ak nelaw ni mu neexee ni ni nga sonne journée bi ba yëg ni fi ne coono nelaw moo lay noppal nga dagg sa nelaw yooyu bi ñëpp nelaw occupé ñëpp nga dagg say nelaw jokkoo borom subhanahu wa taala kon jamono ji ñëpp sàgganee seen diggante sa borom yow ci nga rocciku jokkoog sa borom loolu bokk na ci lii maye yiw jamono joo xam ni ñu bari ñu ngi koy ñàkk waaye bokk na ci itam di def ngir jëm yàlla subhanahu wa taala di def ngir jëm yàlla subhanahu wa taala kon jamono ji nga xamante nit ñi dañuy sàggan def ci lu baax day tax yàlla ful saw yiw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci beneen xadis ni di wax ak saxaaba yi mu ni seen ginnaaw ay jamono ngi ñëw seen ginnaaw yéen saxaaba yi muñ ci diine muñ ci tegu ci yoon wi yàlla bëgg day mel ni ngëpp xalu sawara day mel ni ngëpp jamono ngi ñëw tegu ci fi yàlla bëgg day mel ni ngëpp xalu sawara ngëpp xalu sawara yombul rawatina ngëpp ko yàgg ci dëkk ci bu ni noonu lay mel mu ni su boobaa nag jamono jooju ka muñ tegu ci yoonu wi yàlla bëgg kooku yool bi ngeen di am yéen ci jëf ji ngeen di jëf moom bu ko jëfee juróom fukki yoon lañ koy ful benn yoolam ci be- jenn jëf ji juróom fukki euh, yoon lañ koy ful ci seeni jëf seeni yool yéen saxaaba yi jàpp ni yonent bi dafa juum ni ko moom yoolam moom war a gën suñu yool ñun maanaam ban lañ ciy ful ñoom comme ñoo jege yonent bi ñoom nekk ci ci yoon saa semaine déedéet seeni yool bu ñu leen fayee benn yéen moom juróom fukk lañ koy fay ndax lan dafa góorgóorlu ci jamono ju metti dafa góorgóorlu ci jamono ju góorgóorlu jafe kon euh, góorgóorlu ci waxtu sàggan dafay tax nga bokk ci soppe yàlla non seulement waaye dafay tax yàlla ful say euh, say biyaar ñaareelu euh, njariñ bi nekk ci weer wi mooy wax nañ ko sànq ci dañuy yëkkati jëfi jaam yi borom bi subhaanahu wa taala nee na ilayhi yasaadul kalimu tayibu wal amalu saalihu yarfaahu kàddu gu baax kàddu gu teey kàddu gu sell day yéeg jëm ci yàlla xam ngeen mbokk yi li ñuy wax ci ay jëf li ñuy wax ci ay kàddu ak li ñuy jëf ci ay jëf lépp day yéeg ci borom bi subhaanahu wa taala dañ koy jàll yàlla subhaanahu wa taala loo xam ne jëf ju baax jëf ju teey la kàddu yu baax kàddu yu teey buy yéeg dañ koy ubbil bunti asamaan jëf yu baax yi kàddu yu baax yi waaye bu fekkente ni kàddu yi safaan la bu demee kenn du tijj bunti asamaan dañ koy taxañ dóoraat ko boroomam mu nekk alkaale ci moom moo tax lu waaye di génn ci làmmañam rek wala ci sédd boroomam subhanahu wa taala mu nekk kàddu gu rafet nekk kàddu guy defar ak situation bu mu mën a doon bu sa kàddu di génn jëlal yàlla teg sa digganteeg ka nga jëmee kàddu bi fexe bu nekk kàddu gu rafet ndax sa kàddu la yow yow lañ koy fay sa kàddu la yow yow lañ koy fay te ji- jëf yu baax yay yegg ci borom bi kàddu yu ñaaw du ci bokk moo tax yonent yàlla yunus alayhi salaam dafa am kàddu gum baaxoo woon di ko wax ilayhi yasaadu kàddu gum baaxoon di ko wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin kàddu googu da ko baaxoon di ko wax dafa bokkoon ci dundam dafa nekkoon ci dafa saxul ci làmmañam moo tax ba ko jën wa wan ne ci biir géej ba ko jën wa wan ne ci biir géej kàddu googu dafa continuer di ko wax bi mu waxee kàddu gi rek malaaka bi kàddu gi yéeg asamaan malaaka yi dégg kàddu gi ñu ni kàddu gii de min nañ ko min na fay jaar min na fay jaar loolu moo ko safee ci baal ka ci ci ci biiru jën bi moo tax borom bi ni fa lawlaa annahu kaana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun bu fekkoon bu fekkul woon ni dafa nekkoon kaana lu paase la te démb laataa situation bi dafa nekkoon min al musabbihin daan daan daan sabbal yàlla kon ci biiru jën lay sax ba yow mi di ba ba ba keroog bis penc kon lam daan def ba mu ko defee ci jamono yim laaj yim soxlaa xettali ko rek suñu war la koo xettu ndax lii da koo baaxu woon kon lu ama am solo la euh, baax tàmm euh, lu baax kon ci la ñuy yëkkati jëfi jaam ñi euh, yonent bi saa sallam nee na jëfi jaam ñi dañ koy euh, gaaral borom bi subhanahu wa taala ci euh, euh, jëfi at mi ci euh, we- weeru weeru Shaaban mu ne buñ demee ba ci guddi gi mujj wala guddi gi gudd guddi digg Shaaban maanaam quinzième nuit maanaam buñ ne bu buñ amee fukki fan ak ñeent guddi go guddi fukkeel ak juróom mu ne boobaa borom subhaanahu wa taala day jéggal mboolem mbindeef yi day jéggal mboolem mbindeef yi mbokk yi ñu soxla jégalu yàlla lañu dañuy bàkkaar bari na ci suñ kàddu ci suñuy làmm ci suñuy bët ci suñuy nopp ci suñuy tànk ci suñuy loxo dañuy jëf dañuy bàkkaaru bari na bu ñu ko yàlla jégalul mara day taal waaye mu ni guddi googu yàlla dafay jéggal mboolem jàng waaye mbokk yi yorom situation bi yemu ci ne day ba mu des ñaar ba mu des ñaar ñaar ñii moom duñ bokk ci njéggal loolu te par at at ba at ni genn guddi googu ndigal loolu di wàcc mu ni kii bokkaale ak yàlla illa li mushrikin ba mu des aji bokkaale ndigal gi moom dañ ko ciy épargner du ko du ko du ko du ko am waaye ak koo xam ni ak ñaar ñu noonoo ñaar ñu am am am am xaar ma yàlla ñaar ñoo xam ni duñu tuddante ñaar ñu xuloo ñaar ñooñu dañu leen wax toog leen fële ba kere ngeen di jugu te guddi gi moom genn guddi la moo tax mbokki jullit yi doomu aadama di ko war a soxal ci dundam du moom ak ñi mu koy séqal di ko war a soxal ci dundam mooy diggante mu borom bu la loolu yitteelee dootoo gis ñu ngay séqal mbir mi loolu waaye mën a wax dootoo mën a yow bul def la rek dootul la yegg fenn fi ba mu lay tax di tongoo ak noonu ndax tongoo ak noonu dafay baare jullit dafay yàqal nit ki xoolal bunti njëg li mu ko tëjal bunti njëg li mu ko tëjal kon képp koo xam ni am nga xarma yàlla ak sa morom war ngaa jéem a di- dindi loolu te guddi googu nag mbokk yi yaakaar naa li ci des bariwul yaakaar naa tey dañuy fukki ak ñaar ci weer yi ñetti fan la ci des koo xam ni yëg nga lool ndax sa diggante ak sa morom seetal yàlla bul gisati ki nga ko séqal jéem a lem dindi lool yéen salaasa mu ni ñaar bu ñu tongoo ñetti fan ñoom seen julli moom da da sukura lijjanteeti bu dul ñu ñu defaraat seen diggante mu ni ki gën ci ñoom ñaar nag mooy ki njëkkee ki ki njëkk a tudd morom ki njëkk a nuyu morom ki njëkk a jéem a dindi lool moo gën yàlla ñu yàlla dëppale ak guddi googu may ñu jéggal na appelement lool astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mbokk jurit yi ñeenteelu jàngat bi ci euh, weeru Shahban li ñu def ci yi fi nekk ci ay jiw mooy weeru waajal koor la weeru waajal koor la Euh, kon koor gi ngay woor ci euh, weer wi tàggatu la ci waajal koor gi di ñëw julli yi ngay julli ci guddi gi tàggatu la ci waajal koor gi di ñëw moo tax mag ñu baax ñi dañ daan wax naan euh, ñetti weer yii muy rajab shaaban ak ramadan di ndey koor maam euh, euh, ndey koor ak baraxlu ak koor mu ni euh, euh, ñu ni rajab weeru jëmbët la shaaban weeru suuxat la ramadan weeru góob la kon da nga ciy dégg ni ku jëmbatul suuxatoo góob dina la jafe ku jëmbatul suuxatoo góob dina la jafe moo tax yoon saa sallam daan bu rajab masaan dugg si rek day wax ne allahumma barik lana fi rajab wa shaaban wa balligh naa ramadan yàlla yàlla ñu barkeelal ci rajab ak shaaban euh, te euh, fekkeloo ñu ramadan bu rajab dee shaaban mu naan allahumma barik lana fi shaaban wa balligh naa ramadan yàlla yàlla ñu barkeelal ci shaaban te fekkeloo ñu ramadan kon mbokki jullit yi euh, weer la wax weeru fàggu yiw la weeru waajal koor ñu ngi dëgmal weeru màgg itam di weeru koor euh, nañ ko waaj ñaan yàlla mu fekke mu fekke loolu ñu ko te may nu tal ak euh, wér ku ñu mën a màng yiw yi te may ñu defal ñu tawfiixu ñu mën a màng ay yiw defal ñu tawfiixu ñu mën a màng ay yiw ci suñu alal màng ko ci suñuy ci suñu jëmm màng ko ci suñu temps ndax weer la woo xam ni lépp dañ ci mën a màng yiw bu bare bare bari wax mënoo ko màng ci waneen weer ci sa alal ci sa ci sa ci sa temps ci sa jëmm ci sa lépp ci guddi yi ak ci bëccëg yi yëpp yal nañu ko yàlla fekkloo def ko lu tawfiq boo xam ni dinañ ci jëlee lu defar suñu àdduna suñu àllaaxira rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adaaban naar rabbana la tuzig qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma barik lana fi awtanina اللهم آمنا في وطننا هذا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في وطننا هذا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار والاستقرار في وطننا هذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله